ñu nekk ci wàccaayu appel bi tey mu nekk dernier jour bi nga xam ne moom mooy wàllu nettoyage bi sesetal bi ki nga xam ne mooy euh, sunu seen kilifa di président bi di maam Libaas Sarr Libaas Laay Maxtaar ñu ngi lay nuyu. Laay Maxtaar ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla defal jàmm seen liggéey bii nga xam ni moom ngeen ñëw pour encourager nu ñu gën a sawar yàlla na leen yàlla defal jàmm seen rajo bi tamit seen rajo télé bi. fépp fa ngeen bëgg mu egg fa yàlla na leen fa yàlla eggal amin yàlla nañ fa yàlla eggale ci barke Seydina Limam mi nga xam ne moo woote appel bi tey ñu gis ne tey mooy set setal bi te ku wax Cambérène am na daayira bu mag bi nga xam ne yéen yéenay responsable yi daayira boobu naka lay waajale li nga xamante si ni mooy appel bi ak journée set setal bi tey nga xam ne tey dëkk bi foo dugg ci biir Cambérène rek ñëpp a ngi set setal ñëpp ngi génnee boo xoolee une semaine a ngi tout la journée mairie Cambérène ànd ak association Cambérène yi at daayira yi dana di def set setal yi ëtt yi at mbedd yeeg yëpp tey jii nag ñu jàpp si ni tey la dernier set setal ndax ñaari fan moo si des léegi nag ñu fas si set setal li si des lépp lépp lépp lépp waaw ndax association bu nekk taxaw nga euh, daayira bu nekk taxaw nga mairie bi jàppale ñu si ak moyen yu nga xam ne tey jii mën na wax ne mettiwul ndax avant moom un mois maire bi ma ngi waajal mbedd yi yaatu yi loolu lépp jël na ko ba mbedd yi ndaw ndawaan yi rek moom moo si des waaw loolu daal la nga xam ne dañ ko si sànni bu baax a baax di ñaan yàlla maire Cambérène yàlla na fi yàlla def jàmm ndaxte gis na si avancement suñu aqulaay taala la ñuy wax settatal daan na fi gën a metti mais ñoom ànd nañ toog ñi nga xam ne ñoom nañ ko àndal settatalal nu ba nga yombalal nu ko waaw mu gën a diis nag diis na lool si ñoom diis na lool si ñoom kon nag ñoom ci dañ leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm di gërëm ci waa Cambérène waa Cambérène ku nekk jël nga affaire bi def ko en main waaw bañ ko waxee ba tey ku nekk jël nga ko xafas yéene dalal say gan ndax gan yi gan Seydina Limaamul Mahdi ndax dafa ni aaji boo daayee laay yaa maa sarax suwal jinni inni rasulillahi aleykum woo naa nit ak jinne comme que woo naa ay nit ak jinne nag jinne li mu bëgg mooy mbooloo te mbooloo fu muy nekk lu fay tudd waa set set lañ fa sox hygiène hygiène boobu nag lañ fas yéenee def tey jii ba mu jeex tàkk si dëkk bi waaw. jërëjëf kon bu ñu la déggee say kaddu jàpp nañ ni kon mairie Cambérène taxaw na mu baax a baax a baax li nga xam ne mooy population am moom ñu ngi koy nuyu baax a baax moom ko monsieur maire Doudou Pathé Meng ñu koy nuyu baax a baax sëriñ bi Laye Makhtar ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar laka ngay wax ci bis bi nga xam ne mooy dernier jour setal a tey naka nga ko gisee. waaw bisimilah bu baax di ñaan yàlla mi nga xamante ne ñëwaat na may nu nu fekkewaat bis bi nu siy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla nu fekk ay déwén yi déwén xam ne ñun lul bis bi bisu bàyyi lay gi rek la ñu am moo tax luñ ci mën lépp dañ ko ciy def ñun yàlla dogal na ñun bitim réew lañ jógee ngir bis bi kon di sant yàlla bu baax te samay morom ak gars yi ñëpp ngi ñëpp ñëpp tey rek ñu ngi am benn vol boo xamante ne macha allah mi ngi ñëw ay quatre heures gars yi may waxal seen i booy la ñuy jëli nii aéroport kon day na sant yàlla ñun bàyyi rek la ñu am ku am lu ëpp bàyyi laay jëlal bàyyi noog bàyyi di sant suñu grand frère muy Maliba Sarr mi wax dëgg yàlla nekk si koñ bi yàqu fi lu rafet mi ko fiy def lu mi ngi ko fiy wax kon sax moo xëy génne ñëpp ñëpp ku ne nga toogoon si kër ñaan yàlla yàlla moom it bàyyi ko fi may ko wér defal yokk xéewalam defal ko sunu grand frère yëpp macha allah koñ bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xale yeeg góor mag ak ndaw ñëpp benn lan fii koñ bi amul kii mooy mag amul kii ñëpp benn lan fii cat ba cat ñëpp ñëpp boo fi ñëwee ay 19 heures da naan non kaf ñii dañuy jël fii ñii jàllu fii te lépp li ko waral mooy diina rek diina rek kon nu ngi leen di sant yéen it yéen ñëw ba fii xale la sunu moroom la ñu nag moom noo nekk ndowoon fii mais yàqul dara si dëkk bi bu la gisee nii tey day mel ni ba mu la xamee depuis kon nu ngi koy ñaanal moom it yàlla eh, guddal fanam mission bi que suñu borom teg sa ngay wóolu ko teg ka yàlla bu ci am déception yàlla lépp di xéewal yàlla xam ne ñun li ñuy jógee Italie ñëw fi di appel si rëccuwunu ko rëccuwunu ko di ñaan yàlla at mu nekk rek nu koy man di ñëw di ko di ko fekkee macha allah kontaan nan trop ngeen nuyul nu ko ziaral na ko bu baax nekk ñun nu koy ziar baax a baax a baax si turu Mali Ba Sarr ak suñu grand frère Baye Midion Sarr Madiara Sarr Baye Sidi Ndiong Oustaz ñoom ñëpp Modou Mbaye gaa yëpp daal ne leen nu ngi koy nuyu nu ngi koy ziar macha allah donc laka nga xam ne mooy gan yi nga xam ne war nañoo ñëw ci bésu Seydina Limamou bi maanaam ban comportement ki nga xam ne invité nga xam nga ki dëkk Cambérène ak ki dëkkul Cambérène ñoo yem donc ban message ngeen di jàllale ci ñi nga xam ñoom ñoom ñoo war a mën a ñëw wuy ji woote Seydina Limamou bi ban message ngeen di jàllale nga wax lu am solo la ndaxte gan gu nekk di nga ko gis ku nekk din nga ko gis ndax ñun yàgg nañ si événement yi ku nekk gan gu nekk ak jikkoom ju muy ñëwee mais nag ñëpp xaman nan laayan ak dal laayan ñëpp xamee nañ leen ak dal xamee nañ leen ak maandute xamee nañ leen ak lépp dal kon nag dañuy ñaan gan ñi fi ñëw lépp lu leen autorités yi wax rek nan ko jëfe te xam ni defar rek moom moo tax bu la ne jaaral nii jaaral nii te nag laa yéen dafa am loo xam ne tey ji ñu joxe ko message mooy lépp lu ñu xam mooy yére yu weex kuy ñëw koo xam ne tey ji sa bis ba la solal yére yu weex nañu koy dénk weex tal ndax ñun loolu lan ñu xamee ba àdduna dina ko roy kon nag sant yàlla bu baax la te encore di lancer message gan yi gan yi ñiy téye saak yi ak bagage yi bu baax a baax a baax ndax nit amul lu dul matériel am matériel nag bu réeree rek da ngay étupé bu réeree da ngay mel ni ku jaaxle sa xew dootul neex kon lu lu seen matuwaay mooy loo am rek dénk ko doomu aadama mu tëjal la ko dafa laal la ka kon képp kuy ñëw na nga sol li nga xam ne mooy lu weex lu weex mooy jàmm ñu gis tamit ni te mu appel bi ren jàmm la ñu woote. xel waaw waaw xel day fattu. ñu ngi jégal bu baax a baax suñu benn waajur boo xam moom la fi yàlla teg si koñ bi moo bàyyi Seydina Lo moom moo dëkk fi si koñ bi moo fi si mag ak bàyyi libaas Mbaye Seyna ak Baye Abdou ñoom ñëpp nooy si magu koñ bi mhm. ñoom comme dañuy ñaan rek ñoom it yàlla bàyyi leen fi xel day fat ñu ngi jégalu bu baax su ñoom ñu waroon jëkkee mais ñu ngi leen di jégalu bu baax suñu mag yooyu ñu ngi leen di jégalu jërëjëf dëgg la jërë ngeen jëf tey loolu lañ amoon ci ci côté bi nga xam naa dañuy dem ci yeneen côté wane waat li nga xam ne moom mooy euh, liggéeyu set setal bi nga xam ne mooy mooy bisu tey di préparation appel bi nga xam ne ñaari fan moo ci des ci appelu woote maam Seyna Limaamu salaam waaw barakallahu ginnaaw bi nga xam ne jël nañ euh, waa mbedd mi ñu ngi fi nag ci dal fi nga xam ne ñoom la waa Ngaaxam di dal ku wax Ngaaxam wax ni fa la euh, maam Seydina Isa ruuhullaahi alayhi salaam jóge woon ñëwoon pour julee si baayam Seydina Limaam tey ñu ñëw fii ci kër gi gis ñi nga xam ñu ngi préparé appel bi tey sëriñ bi naka ngeen di préparé appel bi ak wàccaayi gan yeeg yu demee noonu. waaw bisimilah rahmaani euh, ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di wax ni am kontaan bu baax a baax di baax di waajal bési Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaam moom nga ne moo taxaw si tafis géeju géeju Yoff ni aji boo daay la moom nag wowul nit ñi kese dafa wow nit ak jinne ndax du wow nit ñi kese kese kese rek kon yaakaar naa ni laam-laam dina am wala wéet yooyu noonu mais nit ak jinne la woo fii nag ñoom ngeen si ëtt boo xam ne ëtt bu sell di ëtt kër Baye Mamour Diakhaté di ne ëtt kër Baye Mamour Diakhaté nag di kër Baye Ngagne Ndiaye Baye Ngagne Ndiaye mi nga xam ni ngaa xam la nekkoon fa la cosaanam nekk mu nekkoon si baay Mamour ba mu nekkee si baay Mamour nag ci la ko Baye Mamour jëlee jox ko sëñ Ablaye pour mu liggéeyal sëñ Ablaye bu mu liggéeyal sëñ Ablaye nag si la sëñ Ablaye ñëw fii nii ñëw daggal ko tey bayal bii nii tey ba ñu ñëpp tey ñu mën fee dëkk Baye nga njaay nag amaana génn deux deux génn àdduna 2006 waaw mère Rama Jaxate tamit di soxnam moom tamit sëtu Baye Mamour Jaxate moo ko jur. taaw maam li taaw Baye Mamour Jaxate muy tudd maam Libaas maam Libaas moom nag moo jur mère ma Jaxate mère ma Jaxate moom nag la sëñ Ablaye jëloon tënk ko Baye Ngagne Ndiaye tey tey moom mooy suñu jur ñun moom génn àddina 2014 kër gi nag mi ngi nii waa nga xam fi lañu dal Malika yëmbal fu ne la nit di jógee di ñëw di dal fii nii ñun nag ñu la leen benn appel di leen woo ñu ne ñu ngi woo si bisu Seydina Limamou Mahdi alayhi salaam bi mardi la ñu xëy dañuy dem jàmmalaay si dul Amine ngoon maa bi ñu ngi dem Ngor suñ jógee Ngor ñu xëy ñu ngi dem Yoof si yoor yoor bi nga xam ne seen Seydina Limaam Mahdi alayhi salaam wootee moo waral ajibo daay la ngoon maa bi nag mu nekk cérémonie bi nga xam ne si la ñuy dalal gani yi gërëm nit ñi ñaanal nit ñi kenn ku ne ñu ñaanal la yàlla may la nga fekk ay ati ati ñaan yaan yàlla may ñu fekk ko te tal ko di leen sant yéen tamit di leen gërëm di leen ñaanal yaan seen li yokk bu ngeen yëg ko yàlla may leen lu kawe seen njort suñu grand frère nii Mali Baas nekk ku baax moom nag moom gën a xam histoire bi fuuf fuuf fuuf fuuf waaw moom li si desoon dafa ko koy bàyyi ndax du ma jël li ma moom quoi. jërëjëf sëriñ bi ku dégg kàddu yi xam ne kàddu yi rafet na kàddu yi am na solo Mali Baas Sarr li mu wax naka nga ko déggee ak yan kàddu nga ciy toftal. waaw rafet na rafet na ndaxte comme ni mu ko waxee rek nee na ngaa xam wante tundu jantal boobu yëpp mën nañu wax ni fii la ñu jëm si fii la ñuy dal mhm. du ëttu kër Baye Mamou tudd na yooyu yëpp miin naa ko bu baax. dox naa fa tamit ay kilomètres. Mhm. du ma fa kon nag ñu ngi leen di invité ñoom ñëpp. Mhm. di ñaan ñu ñëw ak jàmm. delloo ak jàmm. waaw ndax sama rakk ji lu ma wax rafet na lool. Mhm. di wax si maam Mamour maam Mamour. kenn mënul wax Seyna Issa. bàyyi maam Mamour. dëgg la ndax euh, maam Mamour doxoon ne man maay Seyna Issa Seyna Issa mooy man. ndax lan fa nu nekkoon seen maam Mamour. kon nag maam Mamour mission bi. tey ji ndam la si moom ndam la ndax métti woon na seen jamono tey ji ay sëtam a ngi nii di dox si si waar wi di si bay lool nag lool sax laa wax benn sëtam noppalu ko wul kon sant yàlla baax la di ñaanal ay doomam yi nga xam ni ñoo fi desandi yàlla na sut maam maamul fan si barka bàyyi laay jërëjëf kon xam naa am na ñoo xam ne tamit waalo la ñuy jóge ñoom tamit ñëpp seen dala nga ne uh-huh. commencé si nañu wàcc après sa lañ jëm nii pour uh-huh. wan wan euh, nit ñi incha allah rabbi incha di wax nag euh, appel bi soxla na si képp kuy ñëw. na taaral bi si sol lu wax tal. percal yomb na lool. Uh-huh. mais doo ko solee rek yaa yoo ko sol jasner uh-huh. yéen a yem. Uh-huh. ñu ngi leen di ñaan ngeen taaral bés bi. xam ne ñu xëyee incha allahu si fii si koñ bi. fii ma dëkk si koñ bi xale yi dinañ fi defar ay ndékki. di ko joxe ñi nga xam ne dañuy dem jàmmalaay. ñu ngi koy def feneen ak feneen ak feneen. suñu demee jàmmalaay ba midi une ngeen ñëw si tey si kër yi ñu dalal leen. toppatoo leen bernal leen si kàttan yàlla incha allah. incha allah rabin tey loolu lañ fi amoon tey doon nañ ko andil tey di leen wan xanaa dañuy wax suñu benn mbokk si karkat mu daal di jege fii rek incha allah bu ko defee mu daal di ñuy mu daal di ñuy ci barke Mame Seydi. aji boo daayalaay yaa ma jinni inni rasulullah waaw mbokk yi comme ni ñu ko waxee sànq rek sànq ba tey ah, ñu ngi woon ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkk Seydina Issa Rouhou Laye tey nag ñu ngi fii ci kër nit boo xam ne ku yàlla may la ci wàllu média muy sunu kër sunu pap Seydina Mandione Sarr ku wax Seydina Mandione wax ci wàllu daaray koc ci wàllu théâtre tey nag ñu ngi fii ci këram ku ko xam-xam ko ci taalibe Seydina Limam te ñu ngi fii ak benn doomam moom dafa xaw a jàpp nekk ci préparation bi ñu waaye ñu ngi fi ak doomam libaas laay maxtaar laay laay ñu ngi lay nuyu bu baax a a baax di lay ziar. laay Mamadou ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal comme ni nga ko waxee si dëkk Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salaam comme ni nga ko waxee paa bi fan yii yëpp boo ma gisee man it sama masque xam ne ñu ngi si préparatif yi comme ni ñu koy defee chaque année ngeen ñëw fekk mu jàpp. waaye yaakaar naa li olof naan génn golo gudd na waaye loo si laal borom yëg ko te xëy na moom bu teewul ñun mën nañ ko teewal noonu la demee laa Matar. jërëjëf naka ngeen waajalee li nga xam ne mooy appel bi ak gan yi nga xam ñoo fi war a ñëw. waaw appel nag comme d'habitude bés la boo xamante ni amuñu sago si bés bi ndax ki ñu gëm yaakaar ko tey ak ëllëg muy Seydina Limaamu alayhi salaam bisam la ñu koy waaj ku ne xam na ni appel dañuy dalal gan yi ni nga ko gisee dëkk bi ñu ngi si set setal maire yi ñu ngi lay xale yi ñu ngi lay góor ñi ku nekk mi ngi nekk say activité lépp pour bés bi pour taaral bés bi pour dalal gan ndax sang ba ñëpp la woo ndax ku woo ba yaakaar naa bàyyi woo kenn ndax comme ni ko waykat bi di waxee loolu la wax yaa maxsaral insi wal jinni inni rasulullah donc ñun mënuñ lu dul moom min yaakaar àdduna ak alaaxira taxaw ci bis bi xaar gani def si lu nu mën ak lu nu mënul ndax jaral nañu ko. jërëjëf taxaw foofu nga xam ne moom la wax ne Seydina Limaamu ñëpp la woo woo Murit woo Tijaan woo Xaadir woo Laayaan ñëw fii nga xam ne mooy sunu baay Mandione Laye Sarr tey ku wax seen ku wax Seydina Mandione Laye Sarr wax ne dina am ganu artiste tey naka naka maanaam tey ak gan yi nga xam ñoo fiy ñëw parce que xam nga ñëpp duñu ay laayeen ñi fiy ñëw ñëpp duñu ay laayeen tey ki nga xam ne du laayeen maanaam xamul charte yi nga xam ne moom moo war ci ni ñu war a teeroo bis bi tey boo demee Touba buñ nee buñ naan buñ ne bu nee gan yi ñu ne gan yi nangam lañ leen war a defal nga dem Tivaouane noonu tey boo ñëwee Cambérène maanaam gan yi tey boo doon jàllale message ci gan ban message ngay jàllale ci gan yi ban message nga leen di wax bu kuy ñëw ban comportement ban comportement nga war a waaw gan yi moom yaakaar naa ku xamul chartu waxuma sax chartu di la daral këram waaye ku xamul chartu Cambérène sax dégg nga ko Cambérène dëkk la boo xamante ni yu ñuy def lu bari si biti doo ko fi def Cambérène kenn du fi tux Cambérène doo teg musique muy jolli te bis la boo xamante ni buñ la dalalee yaakaar naa koo fekk si muy sol weex boo ñëwee weex ngay sol te yaakaar naa seen alimaam alayhi salaam bam ñu woowee sol gu weex la gën a fësal si ñun loolu day wane équilibre équité ndax sol gu weex yi mi ngi si namoon kii bu solee perkaal kii sol jasneer dinañ xam ne diwa ëppale waaye ñëpp bu ñu maasee sol perkaal doo xam ko ëppale donc ñu ngi woo ñëpp si sol gu weex surtout ndax sang ba moom la ñu moom la moom la ñu jox beneen bi ñu ngi woo nit ñi si dal ñu ngi woo nit ñi si jàmm ndax li bàyyi laay woote lépp boo ko tënkee jàmm jàmm jàmm da cee ëpp. te jàmm te moom moom mooy moom mooy temu bi. tem ren ci la bokk donc ñu ngi woo nit ñi ci dal woo nit si jàmm ñu woo nit ñi nag surtout ñu gën a gëstu Seydina Limaam alayhi salaam surtout ndax fi àdduna toll coow yi ngi gën a bari ni ko Seydi Maam Libaas suñu sang ba di waxee tey la weddi gi gën a tar waaye ñun laayeen tey la suñu gëm di gën a yokk waaye ñi ngi woo nit ñi surtout di leen woo di leen dalal waaye àdduna ñu dem gëstu ji Seydina Limaam ndax pour man fa nga toog naan du moom est-ce que moom la lii di jiixi jaaxa ñi ngi cent quarante-troisième appel donc la nga naan dina dem ak du dem ba nuyu wàññee ay cent et donc boo amee xel gëstu ji war na la donc ñi ngi woo ñëpp di woo àdduna di wax ni saaga fajul lu bari lépp loo bëgg gëstu ji rek demal nga gëstu ko ñun nag xaw ma lu ñu ñàkk waaye ñàkk ñu ñu layal bàyyi laay boo bëggee xam rek di nga xam donc ñi ngi leen di woo si bës bi nga xamante ni mooy bésu sang ba alayhi salaam ñu ñëw gëstu waaye ñu ñëw nag ñu dalal leen teral leen ndax borom bis bee woote. léegi-léegi bi muy dugg si ngay xool ëtt Cambérène yi koo fekk muy fóot mi ngi sikkar ku nekk ci waañ bi di sikar ku nekk ci maçon bi sax wala mu nekk ci atelier sax mi ngi sikkar loolu moo ko waral. waa xam nga ñun bay Laye alayhi salaam noonu la yaree njabootam dafa ne woon tudd leen yàlla foo leen mën a ne. loolu la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy sax di wéyal tudd leen yàlla foo leen mën a ne donc nga nekk si sa bërëbu liggéeyukaay nga nekk di comme ni nga ko waxee di liggéey di fóot ñun dañ dem ba habitude boobu la ñu am ndax ñun loolu lañ ñu yaree comme ni nga ko waxee da ngay romb xale bu ndaw di ñun xale bu ndaw sax booy jàng wax si kar ngay jàngee wax xale bu ndaw buy jàng wax da gis ni si baatu laa ilaha illallah lay jàngee wax ñun sang ba noonu lañ ñu tettee suñuy suñuy ñu juddu fekk suñuy waajur ci loolu ñu màgg nag am am am lii boobu ci ñun. moo tax daal sang bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax tey loolu lañ amoon fii tey ñu ne woon nañ ñëw suñu kër ma Mandione lay Sarr ñëw jël si ko waxtaan ak moom waaye ba fekk ñu ko fi njabootam nañ fi fekk ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di am contentement baax baax ci dalal bi di ñaan yàlla ñu yàlla may fekkee jàmm appel bi ci barke Seydina Limaamu alayhi salaam mi nga xam ne moo woote ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa ji info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 nopp dalatu na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji e foog ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm